tey nag ñu ngi fii ci euh, fi nga xamante ne mooy kër guy gi seet si le grand champion ndaanaan daaw ku ne xam na ne li fi nekkoon a tax ñëwuñ fii mais daaw jéeg ñun ak moom la woon ak suñu papa Mor Fadam di ko ñaanal yàlla xaree ko ci àjjana firdawsi ya ak mboolem ko dëdd tey nag ñu ñëwaat ci guy gi fas yéene amoon moo waxtaan muy li nga xamante ne mooy wàllu koor gi ak tamit ci combat bi nga xamante ne ci la jublu le 29 août incha allah guy gi maa ngi lay d'abord d'abord dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw ban sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur di nuyu suñu sëriñ Sëriñ Asek borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér di nuyu sama xarit général Baye euh, Abdourahim Seck yàlla yàlla yàlla oyo fa yéen bi di ñaanal sama xalifa général bi génn àdduna maam Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ak bépp mbooloom jullit bu mu fa fekk yàlla mun na ko yàlla na yàlla def di nuyu Sénégal bu baax di gën a nuyu sama yaay di nuyu sama papa bu baax nuyu sama famille suma rakk yi ñoom Ndaaram Aysa ku ci mel ni Babacar Moustapha nuyu suma grand frère Modou suma taw papa suma xalifa nuyu vraiment ñi nga xam ni ñoom laa nekkal fii suma kër gi suma soxna bee bi nuyu suma taalibe ton pap nuyu suma xarit sama genwàll dere suma waayal suma lépp la bolo di ko nuyu Pape Ndoye ko ñaan yàlla yàlla may ko ndam ci combat bi John Sena bu Thiès xam nga ñoom petit Père Mansour vraiment xam nga di nuyu tamit euh, euh, di nuyu euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal koñ bi muy mari commandant police bi nekk fii ñu dend tout près vraiment nekkoon ci toog yi doo xam ne sax policier la quoi parce que c'est la vie nuyu waa bu loolu jàll mu nuy waa école bi di suma papa Mor Faram yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana daaw fii ñu ak moom la woon comme nii daaw jéeg ndeysaan pël yow def naa yaa ngi fi woon ñu toog comme nii seize bi fii ma toogoon exactement la toog ndeysaan di ko ñaan yàlla ko yóbbu yóbbu àjjana mu ko baax ku ma bëgg ku ma bëggoon nag sax laay wax waaw du nuyu suñu président écrit Pate Silla waaw vraiment suñu xarit la sunu waay la di nuyu Jili Jili Wade secrétaire man ni ma ko yaay l'homme de le poste yaa yor poste waaw euh, secrétaire nouveau ménager euh, <laughs> ak lan <laughs> nuy ah, nuy ambulance sunu mag sunu xarit moom suma waaye la moom xam nga vraiment ambulance saa bu ma wooyee rek damay yedd jubanti ma <laughs> xuloo man teg ma ci yoon li ñu gis sax bëriwul kon ambulance maa ngi fedal sama kóllëre ci yow di la nuyu baax nuyu suñu jigéen Kumba Njaay muy ku bëgg école bi vraiment nuyu suñu entraîneur boo xam ne kenn la ci man moom muy ngay moom nee na moom li ma ñor moom nee ma ci biir géej gi entraîné sama fekk la entraîné na yow moom sama xarit la mais nag dafa gaaw a mer de <laughs> nuyu naa ñëpp daal suma ma limee damay juum nuyu ñi nga xam ne vraiment bokkuma ñoom ikir yi mais sumay may rakk lañ ku ci mel ni fils de Balla gis nga ko ñëw teew ku ci mel ni B52 gis nga ko moom tey mbuus baa ngi teg ci côté <laughs> nuyu sama taaw baro ñoom jam <laughs> nuyu Zal. Zal Zal vraiment moom tamit xam nga Zal moom mos ko fekk ci géej gi boobu nekk guma mbër mu si meeku <laughs> ma tiit xool yàlla def rek ndeysaan ca ay tànkam laa jaar su ma sama xol day tooy affaire yu garaaw di ko ñaan yàlla doom ci génn àdduna yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana di jaar suñu benn papa xam naa yéen journaliste yi miinoo leen ko ñenn ñi miin nañu ko ñenn ñi ko muy Père Ndiaga Sarr ku baax ku bëgg ñëpp moom xaamewul école yu Mor Faram école yu Balla leen boo waree bëri dina la woo dama ne la doom doom defal nangam doom yàlla na yàlla mbay dem yoonam même stade dina fexe yow ne defal ndànk waxal waxal waxal lii waxal lii wala defal lii defal lii kon defe naa ni moom tamit ñu ngi koy seddal sunu bëgg ci moom parce que tamit nit ki ñoom xam nañ li may wax am na lu ñu seqoon lu ñu doon sumbo yàlla moo dogalee nii dañoo ambulance dafa ñëw toog B52 fii la toog ambulance fee mu toog la toog Fifty Cent toog fii Fifty Cent a passage di ko nuyu ñu wax li ñuy wax ba pare ñu seeq lañ seeq génn avant ngeen di génn même vingt minutes ngeen moo ne ma génn àdduna kon am na lu ñu yéene woon te yàlla na ko yàlla àggali di nuyu tamit sa kenn xam suma grand la muy Abdou Diouf gis ngeen déplacement bi mu def tamit ñëw moom suma xarit la wan fa pon di ko nuyu bu baax a baax su ma limee demee jox naa bu ñu demee ba su pël poser question yi réponse lu ñu fàttali rek ñu dugg ko ci bu soobee yàlla incha allah guy gi ak koor gi entraînement yi ngay waajal combat tey mun nañ xam naka ngay pratiquer entraînement yi ak koor gi non fan yëpp moom dama feebaroon boo bëggee dëgg-dëgg parce que dama defoon damay teel a bëre renforcer sama entraînement di def trois séances yu métti yokk tamit samay poids nekk ci lu métti di entraîner defe ni damay teel a bëre parce que def ma damaa ko moon parce que maaw dañu woon day dem Màkka te Màkka defe naa juin lañ wax may renforcer samay entraînement ñi man ñi ma nekkal xam ne lañ wax bu ñu yéegoon ci kaw dinañ gis samay samay matériel yi mën a nekkoon ci form bu doy waar macha allah mais nag xam naa jaam ak pexeem yàlla dogalam xam nga ma tooy tooy gu donc huhuhu du kenn sëqat ay ay détails xool maa doon toggal sama bopp supp bi war na yàlla de bee bi noo boobu boy bi nekk gu fi mais supp bi bu ma ko toggee bu pare duma ko sax a lekk dog bu métti laa dogoona ah, mais alhamdulilah rap naa sama entraînement nag léegi parce que loolu loolu la sport la ànd du mystique nag dañu may seetaan bu ñu yaakaar mystique la de waaw du mystique damaa tooy man maa ko def sama bopp parce que dama doon def benn séance ma def trois man maa def trois ak boole ko teguma ko ci yoon ko vraiment. ñu ne le 29 août ci am comme si ñàkk am bu tawee nooy def da ngay làmb ji wala da ngay arrêté. pël taw moom vraiment yàlla mooy borom fan aliment yurid ñun moom taw moom liñ mën mooy jublu ci dugg ci di xaar loolu ñëw. te bu ñëwee CNG defe naa jël nañ seen argument seen matukaay bopp defuñu ñoom bay tëgg làmb te duñ jël seen matukaay au passage di nuyu président bu bees nu tudd Bira ñu koy nuyu baax non billaay xaw ma ko billaay xaw ma ko dama fee nekk di xam njiit GNG nu mu tudd xaw ma ko ak ki fi nekkoon moom xam xamoon naa ko ñëpp sax dañu maa féetaloo moom mais xëy na lu ka ñuy dem ba ci kanam kanam dinaa xam président bi nu mu tudd non du même mënoon na maa dagg man lijjanti ma loolu anyway non non jili man lijjanti ma am lu ma man lijjanti ma diw nu mu tudd man dama fee man moom bu ma lijjanti nu mu tudd avant muy toog dina mu tudd man na maa gis xam ma mais gisee man du ma ko xam wallaahi mais nag loolu tànk mi ngi fi liggéeyam di ma gën a neex dinaa toog ci télé bi seereel ko Matar Ba man la njëkk a avant may recevoir maa njëkk wax ni Matar am nañ ñi ngi doog am ministre man maa ko njëkk wax ci mbër yi man la njëkk a di doog a def par benn par benn par benn mais après bi ma dégagé tuuti arrière mooy ci Covid bi Covid bi ñëpp dañoo taxaw mais Matar Ba ñu taxawuñu personnellement taxawuñu moo tax waxuma ci te suma xaree la bëgguma di waxaat fee ñu indil ma vaar naa yeexoo lii ñun mbër yi amul kenn koo xam nii mille millions yi ñu doon wax ñun laal nañ ci te mooy sunu président kon defe naa ni loolu man loolu da cee fausé dafa fausé bilan ci mbër yi moo tax man léegi ma arrière waxuma ci te bu ma ci waxoon dinaa wax lu ëpp mais moom président lépp def na ko mu rafet mais mille milliards yi dugg ci Covid bi da cee fausé te ñun ñun ñoo njëkk indi don don yu soo su ma juumul Gris Bordeaux oto camion don lañ indi social mbëri ñun ñëpp sunu fukki dërëm suñu juróom dem na ci. mais kon bi ñuy def mille milliards di ko séddalewaat moo tax damaa naw Youssou Ndour ña ña boote woon ci ginnaawam. ay milliards laal nañ ko ñoom ñëpp laal nañ waaw. waaw waaw ministre ministre day mat li doon néew ma nag Matar ba matu lu mu doon mais Covid bi da cee faussé directement la ko suma xarit la du ma nag jàkkaaroog moom naan Matar ba nangam nangam di ko na suma xarit la ku baax la mais daf faussé kii bi ok. Euh, nga ne da nga entraîné ba dog gaa yi ne guy gi ay entraînement dafa des demoon nga liggéey à chaque fois booy xool xam da ngay bàyyi xel say commentaire genre gars yi ne nañ nga dem liggéey ndax euh, bi nga yor daanul ki nga xamante ne mooy Reug Reug tey lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw xaman nit moom euh, jàmm pexem yàlla ak dogalam mais ñun lu ñu suñu mbébét juin bi ni ko doon bëree man boo ma gisoon ci ginnaaw gisaat mel nii nga xam ni su ma leen damaa feebar damaa feebar. nee ci ginnaaw man dama doon tëdd ba guddi jug booy ak may dégg ma liggéey dere buy xëy la may gis mu wala avant muy day jékki-jékki ci na ma démb gisoon naa la mu enchaîné sumay entraînement yu métti mais nag xam nga guy gi état bi mu yoroog yooyu mbër yàgg na ko wax wala commentaire yàgg na ko wax parce que tamit nit ki moom ki dëkk ak mbëri mooy xam li mu am ki dëkk ak mbëri mooy xam ni mu capable lim moom mais li guy gi di indi état dina def ci surprise Sénégal gi yëpp wala adduna ñu koy seetaan barke Seexu stade man bu ma dugg see sama dugg si bii buñ la ko nettalee dina la metti wala boo ko boo ko gaawul seetaan dina def da kii dara sa bopp parce que man lu may créer la man te lu ma gëm la benn bi mooy loo xam ne man maag sama adversaire bu nekk ci stade bi moom dinaa dina xam ne man mii tey man maa moom bis bi li ma moom incha allah tagal sama loxo fii indi ko laa koy wax dama ko moom dama koy jëli non moom man duma wax amu fa dara mais man li ma am li ma moom su ma ñëwee dinaa ko li nga yow li nga teg ko fii sama loxo ay ndaanaan bërix tey jii ngay bërix ak ki nga xamante ne mooy rëg-rëg bëri ak rëg-rëg fan lay yóbbu guy gi. fenn fenn. lan moo tax nga jël fenn waaw mais moo fi sës te duma ma toog bañ a bëri ñu nekk sama ginnaaw dafa bëri te du ma taal sama loxo naan diw jox ma dara te dañ may laaj. tey nga daan ko tamit fu mu lay yóbbu. du fenn. moom mu daan la. moom mu daan ma moo ci gagné. ñaa mais ñaanu ma ko yàlla sport la mais nag. du ma yóbbu fenn nañ waxante dëgg parce que bëri la ku ma bëreel tey moom moo ci yéeg su ma ko daan dañoon xamoon nañ ko niveau boobu laa yemaat mais nag dafa am loo xam ne moom da koo wane international la fi toll nii ñëpp xam nañ ko di représenter sunu kii drapo fële. Sénégal Sénégal. Singapour waaw xam nga mais du du caaga ni. duñ ko ñaanal ci nañ ko ci ñaanal xam ni xam nga moo ñu fa nekkal mais du tee tamit bu mu ñeemal li ma war a seq moom ci cadre bi ñu wax nee nañ mooy favori moo xew mu affaire yooyu doo ko jox cëram nga daan ko du la yóbbu fenn à part rëg rëg guy maa ngi nuyu suma grand nas xam nga xel day fatu ak suma mag Cheikh Fall Teda Baye Fall ak Yaare ak Fagnang. xam nga Mbaya waa kër gi yëpp ak suma yaay Waré saar xam nga caama nuyu naa ñi nekk ci kër gi ñëpp bàyyi ma kenn Marème Adama xam nga kër googu suma kër la sumay sumay lépp lañ bàyyi ma leen di nuyu waa Biafra comme ku mel ne bàcc Biafra ñoom Alpha Bey xam nga ñoom Baye Dame ñoom Mère Seck bàyyi ma ci kenn maa ngi nuyu ñoom ñëpp waa Biafra di wax ñu waajal bu baax am daal li ma la li ma la mën a wax ni mooy mooy sa question bi nga laaj léegi nga ni fu fu hmm. ma yóbbu. waaw moom laa la wax non am na combat yu ñuy dox sax waa ZFM entretien di ñaanal yàlla li ñuy dox mu sotteeg jàmm ak salaam. gars yi ñu ngi ci quoi incha allah te dina sotteeg jàmm ak salaam man du yàqu ci man naas mi ngi wax ak ñoom quoi euh, te xam naa bu sottee dañu xam ni guy gi am na ambition beneen boo xam ni. Euh, du yàpp quoi xam ne yàlla am na yàpp pour géej bu wala wala wala pël li ma soxla ci combat bi mooy cent vingt kilos comme moom athlète guy gi 2012 ñëw ne taxaw xam ni il est guy gi et guy ñu ni guy gi bii mooy guy gi. 2012 lu xewoon. 2012 dama dugg stade ñu xam ni kii dafa pare macha allah oto bi laa dem yëngal ko ñi koy seetaan bàyyi jiil yow wesaar yow fa la fekk. oto bi laa yëngal dugg ci biir yëkkati dem super ne leen dem leen dem leen ñibbi maa ko moom fii. dem supporter Ama Baldé non si. ñëw ñëw ci supporter Ama Baldé yi ne leen carrément man maa moom bis bi tey di ngeen noppi du ngeen waxati Ama yee vidéo ko ba mu jeex mënatul taxaw baabooy ñëw ma koy mbalak ngéelu ma ngi nii tey du ma bàyyi ma fenn ngéelu ma ñëw ne ma naan ma ne li ma ant tegal bi noonu fi li ma antenne États-Unis a naan man naan ngay yow waaye yow yow man naan tegal bi noonu fële ndeysaan moom it mu sol juróom benn kos la sol mais dama ko yërëm moom su may bëree ngéy daa ñàkk ba bopp bi nel bi ñàkk doy xëpp maa ngi ñëw cosmonaute dëgg maa ngi ñëw di ko libéré mais ndeysaan fi mu taxaw ngay day ñax bay yaram yi di tooy man ko yow gëmul nawet daal kii mu taxaw tee loxo yi di ndeysaan moo tax bëgg bëgg bëgg am na bëggantu tamit am na mais bëgg dëgg-dëgg am na moo tax man j'ai pas droit erreur li ma dese ci kanam j'ai pas droit erreur lu mu war a def dafa leer dafa leer. dafa mel ni sa carrière 2012 moo la ci gën a neex. noonu lu tax 2012 neex ma mooy combat bii rek 2012 mooy 2021 bi rek demi final lañu bëree <laughs> xoolal 2012 për ñi may dox di romb sax gëmuñ damay dem anam mais am nañu staff bi xaw ma nag ñëpp ñëw na ma déet zal du ma bàyyi ma fenn dañoo ñëw ba bi ñu suba laay bëre ci guddi gi ma génn di régler problème bi jour wala gis ma sa gis nas gëdd ma. mu ñëw di wax ci problème billet yi ni coow rek nas na ma du dugg ci biir ay sama waa ji ma waatal ne barki seexu tijaan suba dama koy daan billaahi wala ma lay barki seexu tijaan dama koy daan dem tëdd tot tëdd ci mat laa bi di xotti di fejare matelas bi billaahi di fejare matelas bi takkuma dara dama yëg li ma yëg voilà yëg fejare matelas ba matelas bi fejaroo sama xol sedd ma jaaxaan tëdd nelaw ma xëy suba teel ndékki ba suur naan lu sedd tegal samay tànk gaa yi ñoo ne ma combat ma leen sa waay jël leen def esaat dañ amaa dafa mën a bëre dafa mën a xeex lu fa am man maa koy def mais am na ñoo xam ni comprendre ñoon fi may waxee pël dama dem États-Unis ñu liggéeyloo ma au passage di nuyu waa Amérique yëpp mais xoolal billaahi wallaahi taala liggéey bi ma liggéey États-Unis dama doon ñibbi si yi ma njëkk a liggéey dama doon ñibbi si dama ñëw ci paa bi même paa Abdou Diallo au passage di ko nuyu papa diis ma ñëw mu ne ko père xam naa ni daal damaa ñëwoon pour entraîner si mais baal ma dellu Sénégal su ma demee bu ma bëree combat ba pare waxuma ko sa entraînement yi ma ba pare daal di ñëwaat am gàllaaj yu ma des affaire yooyu bëgg a pour ñibbi si ndekete entraîneur bi ki ma doon entraîner woo na ko wax ko li xew munuma coono yi nga daawul daj moom méttiwul loolu moo nekk sa yaram mais boo ko xasee tàmm rek may ma courage daal waa ji ma mbëkk njëkk boole bi ma prisé li goro kemen xaw ma dama jéggi journaliste yi di miir am na sama fa nekk ci internet bi sax ñu tax solal ma kaksi yi may box waa ji mboq mu dóor ma tànk bi dóoraat ma fii lii kii la quoi eh, box mais riim la mais da ngay toog si kaksi waaye daf ma dóor ba sama loxo yi moom man mënu ma ko def ni sama loxo yi dama ko mu jox kanam gi rek affaire bu metti nga pël li ma wax nii xool bi ma demee bi ma nee def 15 jours pël. bi ma doon entraîné moo doon wax entraîneur bi man est que kii bi ko bàyyi fii moom ñu yaa ngi dégg mun est que kii duñ ko bàyyi fii ñu def ko champion fii fekk mu laaj ko quoi ma ne ko père lu mu wax mun ah nee yaa ngi ñëw quoi. mais damay gis ni mu doon mel ci man ak su ma ñëwee ni muy man du ma ngaa ko ni muy wax ak man ak ni muy defee man ma xam ne kii am na beneen cofeel tamit ci man mais bi combat bi demee ba war a ñibbi mënu ma boo demee Sénégal mun ngaa toog un mois un mois yoo xam bul entraîné mais soo yëngoo cinq minutes li nekkoon ci war day génn moo tax américain du nit combat boobu laay ñëw esat bi ma yëngoo ba yëngu laa ilaaha illa dafa mel ni gazel tir boobu ibbeeku parce que non image de fen maag Ama Baldé 2012 la wax lu moo ndax moo la ci gën a neex ma ne ko loolu dama dama mel ni jaseel bu ibbeeku stade bi di dox di baagante sawaay boobu loxo yi mënatul a taxaw mënatul a taxaw mënatul a appuyer ndax sonn parce que boobu laalante lañ dégg naa dënn bi ni muy aspiré ma waxtaan ak ci biir làmb ji may sama bopp confiance découragé loo ko ci non dama ko doon waxtaan fekk dana woon benn intervenir day daan bu daanee day ceetal da dama éviter quoi man ko yow yow sa yow man nga ne man ngay ceetal yow man nga éviter ci ceet gi waxal kuy sa papa kuy sa samp yow di ko mbala quoi mais loolu décourage loolu sa adversaire la man ko ne man dara jeexul ci man même bu ma sonoon sax bu gisoo may def loolu daan wuu xaaral ma jébbal kii sonul ma tamit psychologiquement rek laa dox ci maayinam bëreeg moom noonu mujj gi supporters yi ci kaw tiib bi naan ah yee mujj gi boo déggee waxatuñu yéen ma ñëw ñoom neen wax leen parce que boobu man maa leen découragé loolu ak magam tamit ñëw di naan ni loxo yi di ko def nii di ko fi ma ko dóor mu koy reesal loolu kenn du ko def. li may indi fële bii mooy raw bii bii cent vingt kilos laa soxla. lan moo cent vingt kilos athlète comme moom moom cent vingt man cent moom kiif kiif man maa ko mag d'accord moom na xaar may ñëw. ba tax boo toogee da ngay ne moo dàq bëre ci làmb ci tey moom nga soxla avancé est-ce que nekkul ne ah yaa ko wax de. doo tudd mbër ba. yaa ne yaa ne doo ko tudd. non non ki ki ki ma avance bi ma bëggaat. ne la. mbër bi ki ngay ne. Hmm. moom bëgg mu may la sens. waaw moo dàq bëre ci làmb mais doo tudd turam. moom laa la wax bi. kooku du ma ko nëbbu di ko moo dàq bëre ci làmb ji. mais tamit est-ce que duñ la mere ci loolu. ci yow pël ku ma mere yow yaa xam man nit moo may bëgg loo nit. te nit di bëgg nit duma ko ko bëggloo ma bëgg nit mu may bëggloo nit pourquoi moo dax bëri ci làmb ji. mais yàlla tere su ma waree tudd fa lay neexee man nit kan moo am fitu man di ma di ma bëggloo naan ma yaay yaay yaay bëgg nit te nit bëggal nit boppam. te nit kooku mu bëggal bopp est-ce que sox man sama relation ak moom dem na noonu wala sama relation ak ñeneen dem nañ noonu yow nga bëgg ko man ma bëgg kii na la ni moo dax nag nga ne ma doo ko bëgg ku ma ko wax doo ko waxaat de ci mbedd mi nga xam ne dama wax man rek. mais ñii wax na da jalousie moo nekk sa diggante ak ñi ba tax nga dem beneen gox ne ko dàq bëre ñooñu kon tey lan nga leen di wax. man non loolu moom dégguma ko moom loolu moom dégguma ko moom waaw mais man moom am naa droit ne euh, Pape Ndoye sax mu nekk sama kër moo dàq bëre pël xol li ci nekk danga koy wax mënumaa topp ci mbër naan bëgg naa la dangaa nangam te nekkoo noonu sama xol duma ko def mais dama naan carrément yow. lii moo nekk ci nga ne ma man lii moo nekk ci man ñu ànd kenn ku ne nag waaw ñu ngi koy dox waaw ñu ak beneen ak beneen sax mais dama loolu waxin la woon pour ñu jox exemple ci mbër bi barki Seydina Mouhamed ay bëgg mbër mii nangam nangam bu taxawee bu mbër moomu dégg naan mbër mi mbër mi mbër mi nii damay wax li nekk ci moom parce que man damay topp damaa topp man mbër yëpp dama leen topp B52 mi topp nañ mbappat ma moom kii bi may ñëw mbappat boobu bëriwul xale la non boobu moo ma daan yaa ngi dégg ay mba man damaa topp mbapat kii kii bi muy ñëw mbapat boobu xam nga xaddeen gis nga xam nga xaddeen xaddeen mooy lu ngandali genre ron te mu ngande te xam ñaar la nga yëkkatee moo xaddeen boobu lay téye di ko soccoo naa nii ci biir géew bi barke alxuraan non bi maanaam lam moo xul dëgg rek mais lu champion di def lépp def na ko wallahi wal azim are jaal mbaye boobu kii xale la bii kii buy doogu juddit lu ndaw la ñëwul ci làmb li ma la wax arrêt Dial mbaay fii dama naan bëre ba 4 heures père Djil du may wala ambulance mi mujj taal sama a dem Touba buntu kër ñoom kii gaañu tey nii père Dibo pa Dibo laa doon laa doon gaare kon def naa yow kon def kon def naa man ni du ma bëggloo nit. mbër nga jëm ci combat bu crucial am am am trop sa sa sa sa digganteeg Reug Reug wax nga léegi état bi nga andi woon contre Ama Baldé en 2012 moom nga bëgg andiwaat mais coono yi nga dajoon ba am combat état boobu ak condition physique bi nga wane woon waaw ma jox exemple rek au passage suma benn rek bëri nañ ba pare quoi vraiment ma respecté loolu muy Siteu Siteu bi may bëri mu avant may bëri mu damaa yàq woon waaw bi maanaam mbëxëre mbëxëre gars yi daan guy gi du baaxaat ci man la gars yi yëpp jëm am référence pour mën a baaxaat ou vrai ou fen ci ñëpp ñu am référence ci guy comme que guy gi mel nii ñëpp ay melaat nii président suñu président moo toog moo ñëw ba ma daanee Siteu paate moo ñëw ne ma boobu sax defe naa nekkul ko président boobu nekkul prise moo ñëw ne ma eh am ah, am ah, waaw boobu waaw boobu prise la moo ne ma eh yow Siteu ngay bëreel ni ko prise mi daal daa neex rek yow amoo maamu sëriñ xamoo ci làmb dara naam mu ne ma Siteu ngay bëreel dama la préparé ma ñëwee jël Siteu gars yi coow li bari ma ne ko prise ma ne ko États-Unis lay dugg mais barke Seexu Tijaan dina am doole. ma ne ko barki Seexu Tijaan dina am doole am doole mbaa dee du ma Sénégal su suñ ma dinaa nëbbatu nëbbatu bañ wane ma bu buñ ma wanee loxo dina dar gémmiñ te heureusement bi ñu ma wanee sama vidéo Bantamba lu yi wax dañ noo am am nañu woote nit naan noo gii guy gi bii guy gi bi dem États-Unis barki démb wala di wax di werante jour boobu jare woo na ma xool fois ratatat ay nit ñum toogal pour ñoom montage la yooyu mais nit ki loolu gis nga pël gis nga man miir bi su ma ci bëggoon dugg bëtt ko dama naan dama am gëm-gëm dama koy bët damay dama koy bët dem baa dee loolu muy gëm-gëm loolu moo nekk ci man te incha allah bu mu ñëwaatee bu sooba yàlla bii dinañ gis beneen guy boo xam ne athlète la xam nga sànq maa la naan cent vingt kilos laa soxla athlète ñun ñaar damaa bëgg ñu bëre ba naaw billaahi wallaahi taalaahi man damaa mbappat de waaye man sama man boo seetloo bañ naa ko ba gars yi boxe yi dama koy jël teg ko ne ci kii ci ci kaw kii bi sama doom yi ci lay fo combat bi mu loolu laa ci njëkk a jàng au bu ma ko dee wulli bu bëggee daw ma bëreek moom laaj na la question bu am solo mais dafa mel ni déggu ko bu baax combat bi ñu ko jàppee le 29 août li ñu yëpp posé mooy nan ngeen def ak nawet bi tudd nga CNG mais CNG li mu mooy organisation mucc ayib bu arbitre li wàccee loxoom seen diggante taw bi sóob bu boobaa nan ngeen di def. yow it daa mel déggaloo dama ne ci biir wax ji man la yàlla mooy borom faale maa yurit ah jeex na kay yow mi yaa déggul càndum li ma la wax caar caar bi sa daal yi yóbbuwoon sa daal yi wër ko gars yi <laughs> gars yi sa xel bi lañ des xal <laughs> bu baax mu ne ma ne ko sa sa discours yaa guy gi avant combat ak moment bi ñu signé combat bi bokkul dafa changé parce que dama waaw moom Reug Reug parce que dama gis ni température bi fi nga ko tegoon da nga ko wàccee moom Reug Reug mu ne daf la nax parce que boo buggee jàpp jën day am once boo sànni ci biir boo sànnee boo ko xësee jàpp jaratul nga koy woo kon maanaam woo na la nga wuy si wax amatul jëflante ak yow la fas yéene te bu arbitre ne prip da lay ñaan nga taxaw rek boo taxawee dina dóor ba nga tëddal sa bopp ndax mosuñoo gis Reug Reug xeex yow pare nga pour xeexee Reug Reug samp jaaga taxaw ak moom maanaam turam rek moo njëkk a wuyoo yëfi caaxaan Reug Reug bu jaa mari jaar na xuppaa jëf affaire théâtre la rëg-rëg bi jaa mari jara na ma ko xup faa jam yaa ngi koy dégg kan moo tudd loolu pour théâtre rek la neexal sa kër nii nii tal sun papa Gorbel Jaay yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana papay malal moom junior moo ko rëg-rëg bu jaa mari jaral na ma xup faa loolu loolu théâtre roon loolu rek laa beneen bi bàyyi jili mooy moom moom tamit dóor mu tëral sama bopp mais li ma la mën na wax ni barki Seexu Tijaan xam nga dani dama once na jën boo xam ni dina lakki loxoom onze na jën boo xam ni dina fexe mu duggaat ci géej gi jën gi du dugg billaahi wallaahi laa lay wax ni xam na ni carrément li tax mu wàññi communication am avant muy wax boobu amoon ya amoon sax temps pour bëreeg moom wala may wax ak moom mais guy gu ko jël avance am di nga dégg wax di nga dégg jëf mais yàlla mooy borom vent lumière mais bi billaahi bu ma ñëwee stade ñu xam ne pare naa am naa temps trois mois lu ne xaj na ci trois mois lu ne xaj na ci di nga fi yëkkati bu yëkkati lu la neex ci kilo te bu ma la rombee dogale boo xoolee dóobu ci ginnaaw nga xam ne kii pare na. yàlla tere bul wax waxi moytu yooyu moom moo may moytu man moo may moytu man moytu mbër ji bàyyi jiil yooyu man du ma moytu mbër. du ma moytu mbër. man ma wax la leen loxo ni moom laay def ni tey buñ jàppantee ñaar loxo yi kenn ku ne jàpp si ñaar loxo man benn loxo laay jàpp. naan samay supporteurs jug leen barki Seexu Tijaan non man man loolu laay def sama bopp laa xam man déggoo li ma la wax buñ jàppantee ci biir stade bi moom mu jàpp ma jàpp ñaar xaw ma nag ñu dóorante ba mu wàcc mais bu buñ jàpp rek war a jàppante li ñuy moom la gën a mën benn loxo laa koy jàppee. man da nga maa demal sama intervenir yi nga mas a def yëpp wala yi nga fekk yow bu dee musoo koo def ba xam li ma wax ak stade bi dañ naan kay guy gi ëppal tax mu yàq làmbam ëppal rëfal lëfër yi moo tax mu yàq làmbam wala wax loo xam ni adversaire am nax ko mu ñëw mu yàq làmbam man du ma wax loo xam du ko def man du ma match nul xalaatuma ko du ma yàq làmb xalaatuma ko du ma combat Boy Niang su ma neexoon damay match nul waaw non dama lay leer rek combat su ma neexoon damay match dem nañ ba vingt neuf minutes mu war a def mu def mu war a def trente minutes xaw ma xam na ma waroon mas nii te boobu du mas nii mais boo ñaa la ñuy jox euh, la ñuy jox kii la ñuy jox victoire parce que defe naa ni man moom moo am benn man maa am deux moom mu am benn damay ñàkk Malick uni leen image yi man ko Malick temps bi maa ngi bëri maa ngi wax moom Malick temps bi li des bëri mun ma une minute moo des bu jeexee da ngay ñàkk te boobu sos damm na sama baaram su ma ñëwoon tey su ma ñëwoon tey su ma ñëwoon tey nii laa rek sama lamb yàqu na dañ naan guy gi kat léegi bu kenn tëgg wala nangam nangam rek ma maama ci kawam bi ma mamee ci kawam bi may dem maa ngi miir combat boobu bàyyi jiili wàdd du ma bàyyi ma fen stade du stade sax fee lañ toog sama bunt ñu génn ma ñu génn ma ma génn fexe ba génn ma ma jékki-jékki rek wàccu wàcc bu xongu jiili ni ah mbër moo xam demoo ko stade fi wàcc ma ne ko père la ma lekk la diwtiir la te boobu mënu woon renvoyer combat parce que combat bi renvoyer ne ko trois fois ñu dem di bëri yi benn yoon laa ci contact combat bi ñu jàpp ma yóbbu ma fële pour ma contact géej mais foo ma téye ma ne sama yaram bi day métti boobu li ma yëg maa ko xam waxuma nag ni mystique la damaa fee waroon ñoom ñii président daan toog sama buntu kër di ma xaar ci biir mbay yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana sama médecin ñëw dugg ci biir perfusé ma ba pare perfusé ma ba pare génn ma ne ko non boo génnee nii gars dañu comprendre jëlal kaar jël kurus bi bu joxee man na sëriñ bee fi nekkoon ak man barke alxuraan karim noonu def ak moom préviser ba pare su ma préviser laay doog a mën a wax ak samay entraîneur sax dalal seen xel. waxi mbër la waxi mbër la rek waxi mbër bu ko jàppee ni muy waxee jàppee ko image li nga xam ne moom nga gis rek moo koy wax ba ba gis leneen waxi mbër la waxi mbër la waaw moo tax boo déggee chaque jour man gars yi man du ma mbër mbër dafa garaaw mbër dëgg dëgg dëgg day war dëgg dëgg day wor vrai mbër day wor da ngay defaanu mbër ah da ngay dama leen mbër dëgg dëgg ki nga xam ne mooy mbër dëgg dëgg day wor suba bu ànd ak kii suba ànd ak kii suba ànd ak kii suba da ngay da ngay bëri ay pax man nag moo tax ma leen du ma mbër ndax mënuma loolu dina bëri mbër yu ma ci mel nag mais man du ma mbër waa xalaatuma ko sax sama ànd loolu démb la ànd ak tey ñu ma àndal démb la àndal tey ñu ma nekkal démb la nekkal tey samay sëriñu démb ñëw sama sëriñu tey voilà man bërekat la dama ci am cër rek ñëw ci Euh, fekkee ma ci boole daal waaw oma ci maam oma ci bàyyi fekkee ma ci boole waaw waaw guy ngay jàppkat sa adversaire aussi tamit di jàppkat te day moom bu jàppee day bëtt day daw wër noonu te tamit tey boo leen jàppantee du leen di la ay jafe-jafe si combat ah, bi dama ne li bu ma jàppee léegi kii naan man nañ la yóbbu ne bu ma jàppee benn laa jàppee kay ko ku ku ku ku yaakaar am jafe-jafe doone benn loxo laa jàppee saa sa waay dama ne la guy gi bu bëri 2012 mooy boraat bii te guy gi boobu ki ma doon bëreel moo gën a capable kii may bëreel bokkuñu ama ama trois secondes am waxuma trois secondes am mais attaque am ku ko ku ko résisté champion barke alxuraan ku résisté ñaari ñaari yi ma lay wax de Nees ak Ama Balde seen attaque ku ko résisté champion nga te mbër boo laalagul ak moom mënu wax ci moom te man maa laal ak ñaari ñëpp nas bi ma attaqué nees bi ma attaqué bi ma dóoree sama bët yi gisatul woon ci non bi ma am dóoruma mais ni mu ñëwee bi ma nee nii mel lu ma dóor ci dënn dafa mel sama yaram sa sidi sama sidi dañ koo bàyyi mu ne yasar sama bët yi mel ne xaw la fulu mais boobu bu ma aree loon nantal damay song ma mel ni areeraat eh, eh, ree ree ci kaw mel ni loolu kii ma ci laa moytu coup boobu nag fexe jàppanteeg moom ma xam ni pata la boo ko boo jàppanteeg moom da koy sonnloo ma bàyyi ba mu ma vidé ko billahi wallahi taala ca la laa ko waxee ku résister seen première euh, seen une minute seen deux minutes champion nga waaye bii damay jàpp na ko na ko jàppal nga naan vidéo yow xale xam nga wax <laughs> mbër ñu gis benn benn phénomène bu xew mooy mbëri di cumuler avance jël ñaar ba ñetti avance loolu nan nga ko gisee parce que commentaire yi bëri na ci trop waaw ah, loolu moom loolu moom luy rafetlu la quoi parce que càndum làmb dafa metti ku sañoon saison bi dinga nga bëree quatre fois mbër li nekk ci ginnaawam dafa bari mbër li nekk ci ginnaawam du xaaj parce que tamit daa am loo xam ni euh, bu ko bu ko nit ki bu ko nit ki di dund ki nekk ak moom moo koy xam xam nga wala tey fu ne la di jógee di wax soxlaam am na ñoo xam ni kenn du leen résister am na kaa yoo xam ni kenn du leen résister mënoo ko sax yow barke alxuraan karim kenn du leen doo doo leen neenal pour lu garaaw laa lay wax. dama ñoo xam ne boo ñëwee ba wax sa soxla billaahi wallaahi taala boo doon lebee di leen jox dafa metti dafa metti dafa metti moo tax état bi faaw ñu jàppale jeunesse bi faaw ñu jàppale tamit yenn nit ñi man du ma wax ci politique maa ngi ci doog wax tey mais wallaahi wallaahi surtout ancien gloire yi wallaahi faaw ñu jàppale leen metti na noo metti na trop ak suñu rakk yi nga xam ne nii ñoo topp si ñun di mbër yu ndaw ñoo gën a sonn mbër mu ci am combat mbër mu ndaw léegi nga dugg kër nit day daw li tax muy daw dañ lay gàcc ay bole gi billet pour nga bëree te mbër yooyu amuñu cent mille lañ leen fay wala deux cent mille fay la deux cent mille wala cent mille franc gàcce la dix bole gi billet benn bu cent cinquante mille est-ce que jaadu na pël jaaduwul ah, ba pare boo ci jugee moo mbër yu bëri ngi sàcc pour def ci billet yi mbër yu bëri ngi leb ay bor pour def ci billet yi mais du du noonu nañu jàppale mbër yu ndaw yi ñun suñu wàll ñun sant nañ yàlla bu yemoon fii sax mu neex mais mbër yooyu dañ leen a war a jàppale surtout mbër yu ndaw yi dama leen a man ñi ngi ci géej gi ñi ngi ci entraîné ñi ngi bëree di combat yi gën a métti ñoo koy bëri ñu suñu combat garaawul ñun ay nanta lañ ku ci dóor sa morom xam nga fi ngay wàcc jaar ko làmb ji jeex doo fi nekk di xaar kuu teppeeku di nàcc xam nga mais mbër yu ndaw yi ñooy nàcc ñooy dóorante ñooy signature ñooy def lépp ñooy dugal ci stade yi ñoo dàq combat yi mag yi ma samay combat yi ndaw ñoo dàq samay combat léegi sama combat ak ko sama combat ak Amaneex estat kenn du toog dama ñëw yëngal ko ba mu yëngatu dóor dem ñibbi yenn dóor suuf walla image boobu ama sama président laa ko envoyé vocal bi avant combat bi laa leen ni billaahi wallaahi taalaahi waat ko président vocal sax dañu ko waroon tegaat ma ne ko rëg-rëg bu yow yërumul waa ji da koy dóor ba mu dee saat mu ne ma ne ko gis ji xoolal der siditu bopp yi sidi yëpp génnaat na sidi ay 40 sidi ñoo nekk ci bopp yi booy kii mag la barke alxuraan nii laa man damaa xam nit man man yaa dem fois dem travail di ñëw xam naa bu baax ah mag kooku kooku bu ko rëg yërmoon day dee bi mais gis nga li ma wax du caaxaan man néew ma la rëg danga koy féliciter ci ndamam yëpp mais billaahi am na combat billaahi am na komba non non simple moom neexatul ci combat nga dóor nit ba mu wàcc dóor nit ba mu wàcc toog wala mun wala munu munu munatuma lu ne ngi ci simple simple bi non non non xam naa xam naa du bëgg ma jàpp ngemb bi non su may boo ko jàpp yow léeg-léeg ñi mën a taxaw man ngemb li bañ na ko ba mu ñu ko yor ñu ko yor ko naan loxo bu mu laal moom xam na loolu. ñu ko yor am na ñoo ma ci xam de au passage di ko nuyu paa moom vraiment suma papa la suma père la maa ngi koy nuyu bu baax. bi mooy ban. bi biñ ko dóoree ma daan waaw. wallaahi wal azim nag yàlla teg ma ak ndogu li ma ndogu nii daf ma metti fii laa toog maa ko seetaan ba mu jeex tàkk. moo pam ma ñu ciy waxtaan mais def ma métti wallahi wala azim damaa tegoon sama ndogu xëdd te xëdd la tàmbel ko am war a xëdd mais lekkuma xëdd bi parce que xamul tax mu métti ma bi ci njëkk sénégalais la rëg-rëg ba mu demee daanu daanuwul buñ ne Omar Kane Sénégal lañ ci teg kon Sénégal moo daanu keroog loolu moom njëkk a métti stoppaat ma gis muy def entraînement yu metti fay biyam dem dëbb dëbbal man xam naa li ci génn ñu lay entraîner par heure day métti man dama koy def professionnel yi sa lekk te jàppale yi xam naa du demee noonu mu lijjanti dem ba loolu lépp mu ñàkku te bu amoon ndam loolu dina ko fàtte côté boobu laa xalaatee mu metti ma ma xam ni man xam naa li ci defet moom mënu koo comprendre nag mais xam naa li ci defet après ak boo ñëwaatee ak boo ñëw ak rythme bi mu tolloon pour mu accepter dëgg dëgg dëgg grandeur dëgg mooy accepter loolu léegi ànd waxul samay faay de bu dugal de non non waxul samay faay xamul samay faay de lu mu wax xamulu ma ko ay faay yi non lu leer laa lay wax Paala lu baax rek lay wax ci man chaque jour ma koy seetaan xaadim bul dugal man dama tontu lu ma xamul Paala maa ngi koy déglu mi ngi ñi ko jël suñu lamb kii si TV lañ ko jël sama président keroog moo wax kii euh, Père Djili xaw mu ngi may dégg xoolal ma dégg ma Père Djili moo wax bi Père Djily waxee moom mu wax kii kii kii wax maawo wax maa wax paala la wax ñoom ñëpp déglu naa seen wax dañ dañ ko ni ndax xam nga ay faayam mu ni wax dëgg yàlla xamul ma ko faay bañ ànd bañ dalee ànd ba tey ci quarante mille ba cent mille mu bëgg dugg ci kalaf ba de cent nangam mille kon mu rafet ba tey dafa rafet te guy gi champion la daan na fi ay champion waaw mais Reug Reug tamit dafa nekk ci yoon te am nañ ci moom yaakaar waaye bu boobaa nag da nga ñaan yàlla sunu mbër yàlla may ko jàmm yàlla tamit may ñu ndam nii la Pala Diop waxee waaw nii la waxee kay seetaan naa ko. d'accord léegi MMA bi la naqari woon da ngay dugal de. léegi ñu ñëw ci MMA bi nga nekkoon di xuus hmm. ñoom ñu def recours léegi dañ koo war a bëre euh, fii ak 3 mois soo ko doon conseil ci MMA boobu moo war a bëriwaat tax waa ji lan nga koy wax ci. recours bi pour la mooy combat bi dañ ko non rek rek daa waroon kenn du ko def loolu tojal la woon rek. non non léegi ñoom dañ koy bëriwaat recours bi dafa jàpp. jàpp na waaw ah, waaw mais garaawul mais bu doon maanaam du ma def recours am na loo xam ne bu nekkee sa yaram faaw mu génn daa waroon génn rek bàyyi ko léegi après bu génnee xam nga mu dem champion la moom kenn weddiwu ko. ko waree bëriwaat loo koy loo koy moytuloo ji. non du ma ko moytuloo dara ñi ma man waa ji bu ma déggee dafa am loolu ci rek rek man damaa tiit li ci nit boo xam ne rek rek da ko waroon ngàdd ci loos fii fii comme waa ji njool la te day ñëw bu ko ngàddee ci loos bi day këpp mais Reug ni mu bëggoon bëree moom man dama doon entraîné ko ah, ci jour bi entraîneur laa nekkoon parce que dama yor kii bi di seetaan ma ni non parce que warul féete ak moom que waa ji muscle muscle la kii muscle court la dafa gàtt waa ji ko sosoo appui yi bu ko dóoree day am appui bu baax te bu ko dóoree day wàññi ci puissance am loolu da lay loolu moo sonal Reug Reug moom laa la wax yow yow déggoo li ma la wax de war woon nangu tànk yi di ko dal foofu noonu parce que tànk yi waa ji mënul loxo waa ji mënul loxo du nitu loxo waa ji nitu tànk la day retour ci kaw deux fois wala mu tourner dóor la dóor loxo bi di bitti la loxo quoi moo tax mënul loxo mais tànk yi la Reug Reug waroon humilier humilier tànk yi mooy mm-hmm. bu humilier mooy taf ko jël tànk gauche bi taf ci droite bi ñu ñoom ñaar ñu ñu ñu kii bu tourné ne gis nga du mën a def nii mais bàyyi ko fooram ba pare bëgg a ci ngembali da nga koy dënn bi day libre te dënn bi fii loo ci laal looloo tax. merci beaucoup cant ak ngërëm na la. ñu lay eh, ñaanal jàmm. di la bàyyiwaat nga tàggatoo suñu mbokk internet yi à travers site internet yi fi nekk. waaw du nuyu tamit sama ñaar rakk yoo xam tey vraiment dañ ma seet si ñëwaat ci ci euh, ci ci ëppandal kii bi. Euh, waaw benn la waaw benn la ëpp na période waaw ndog nga muy waaw muy muy muy muy bii bi pël billaahi pël yow pël doon nii dama ko ndam pël xool dama na mu li fi loolu di barki alxuraan karim njug wàcc ak moom déggoo ma de non yow li ma dama dama nam arbi na pire ndax pare ngeen déggoo ma xanaa ma yow saa yow it eh, saa waay non pël barki alxuraan maa gën a Omar Kane combat pël bëgg naa de laa laa jamono yi boo ginnaaw boo ma gisoon da nga naan non non da pour man damay bëre ju kii juin xaw ma juillet damay bëre mois boobu noonu mais dama ne la euh, euh, di maa ngi nuyu sama ñaari suma ñaari rak ñoo xam tey dañ ma seet si vraiment muy euh, muy muy muy bi muy bii bi ak ndeyoo ak papa di ñaanal seen papa yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana suma grand frère tey bii muy Modou seen kër la defee lépp sam tamit seen kër ak sam papa bi gaañu vraiment la defee lépp kon defe naa tey bu may def open press ñoom ñu ñëw fi papam papam waaw ndogu yi papam papam moom moo ñu yar papam papam moo ñu yar man ak suma mag ak suma beneen rak moo ñu yar kon defe naa tey bu ñuy ñëw yaayam barki dem rek la fi jógee xam nga muy nit ñoo xam ne vraiment ñu ngi sàmm colère gi ñu ngi koy ñaanal daal papam fa mu nekk muy bàyyi jaaji yàlla na ko yàlla yóbbu ajana yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def di nuyu ñoom maam Diagne ñoom Soda xam nga ndaaw bii bi ñu nekk ci kër gi yëpp ñu ngi leen nuyu parce que tamit fonk nañ kóllëre gi tey surprise lañ ma defal parce que damay def dara ñu ñëw ci loolu loolu fàttewuñ démb ko waaw waaw di ñaanal ñi nga xam ne vraiment daal ñoo nekk ci koñ bi di leen nuyu ñoom Père Mansour comme ni nga ko waxee sama taaliba ton dere sama taw baro xam nga surtout famille ñoom dere suma papa yi ñoom per Sarr xam nga ñëpp man bàyyi ma kenn parce que kër googu dañ maa bëggal seen bopp maa ngi ñoom ba bokki di nuy waa Haalpulaar yëpp waaw parce que benn côté xalpulaar laa ci rawatina ñëw suma xarit dare di xalpulaar ñu bokk di dugg bokki di génn di dem Matam di ñëw di dem Podor di ñëw di dem Galoyo Tere ji nuy naa ñëpp ñu nekk ci ci ci ci ci ci côté Fuuta xam nga li ma wax daal mooy suma xol sedd na pël yéen tamit mention spéciale ngërëm spéciale parce que ñëw ngeen ak xol bu libre xol bu yaatu toog ree kaf ndogoog ñun loolu su ma doyatul dara duma ma doy mënoon naa woor ñu ne guy gi dafa soof guy gi dafa nangam amul kuy ñëw sama open press ba ma may la cent franc loolu rek bu doon xay xaalis la du ngeen ma du ngeen ñëw bu doon tamit ay wàllu waxtaan du ma ci waxtaan kenn lu bari xanaa pël daal xanaa des fois ma def erreur nii buñ dee mënu ma lii nii doo ko def ak affaire yooyu bu dul loolu duma ci xam nga wala tamit li li may li ma koy félicité moom pël des fois day gis ay boo yoo xam dañuy def lu yoon mun la hee ak lii ak lii ak lii fexe ba loolu rafet moom vraiment tamit dañ ko ciy ñaanal mu dem ba yor teleem non nit nit ku baax la pël bëggulu ra non bëggulu ñaaw bëggulu ñaaw saa yow da ngaa bëggulu ñaaw yow moom yow waaw daa non daa bëggulu ñaaw festival non si ndax su ma toppoon tey su ma tey rek damay damay dugg ci père Pala te père Pala suma père la yaa ngi dégg loolu baaxul yaa ngi dégg léegi daal maa ngi gërëm ñëpp di gërëm tamit suma soxna suma xarit la bébi suma xarit la suma doom la man dama naqaree nekkal des fois damay dif mais vraiment dama ko comprendre waaw moom xam na man xam naa yàlla xam na suma xarit la xam nga di gërëm sama ñaari doom yi dégguñu sax li may wax muy caama faatam mais tamit c'est la vie doom dafa neex di nuyu sama équipe yi vraiment ni leen kontaan naa trop parce que nga xeloo tey sa président toog sa entraîneur national toog sa secrétaire général tout le poste si tout le <laughs> père Djili moom moom moomam poste yëpp man la laa ko tuddee niveau ménagère de guy gi moo tax ne ko père foo mën a dugg dugg fa ndax ménager bu bees nga fi mu toll nii waaw foo mën a dugg rek dugg fa waaw parce que ne yow tamit xam nga ñi lay xaar daa bari te xam naa ne doo bàyyi mu sedd bàyyi jii li maa leen gërëm yow jox naa la nuyoo bi wala ma teg ko ci loxo pël nga nuyul ma ko journaliste ñu neen sama xol sedd na di nuyu sama ñaari xarit yi vraiment ak Abdou juuf parce que li ñu def dafa rëy ñëw toog ak man war ni ko war na niñ seen mag laa ñoo bokk nekk géejawaay te lii yombul am na lu yeneen lu ñu war a defi ndogu am na kër gu nekk am na kër gu nekk te booba demee li ñu doon lekk est-ce que ko lekk fii sax loolu lay gën a neex am na ñoo xam ne fii ay borom am na ñoo xam ni tey am na fu ñuy dem lañ leen tegal ay suusu song yooyu mais dañoo ñëw avant manière kaf ree man kaf ree gi moom ci gën a neex ah, amul benn journaliste boo xam ni gis naa sa kanam gis ci loo xam nii mooy loolu barke alxuraan damaa kontaan li ma sama xol laa ko tuddee tibbee yéen bu ngeen jógee fii képp ku ñëwoon ci lii boo demee yàlla ngay yokk ci barke Seexu Tijaan mooy xam ne yokku nga man nag loolu laa am di nuyu bàcc bi tamit moom dafa sori ci man waaw waaw parce que tamit euh, bàcc dafa dafa dëkk Biafra am fa fans club am fa site yor fa yor fa kiiwu guy mbootaayu guy comme daara no ay jigéen waaw ay jigéen la la fi indiwoon yu bari non si jigéen ñi am mbootaay di natt bàcc leen indi fii muy bàcc ñoo ñun ñu tudd bàcc sopp na bi dëgg la li ma ta caaxante ay mbootaay dafa yor mbootaay moo ñooñu dañ maa bëgg waa waa Biafra billaahi wala taala li ma wax du caaxaan mbootaay bàcc bàcc mooy non bu yor dafa yor mbootaay jigéen la yor fan si club yor ba pare site li ma la wax li man man li ma la wax bu ma waxee téere yi article siècle sixième siècle boo ko ibbee na ko fa fekk téere laa lay wax man téere déggoo ma de yow jiile comprendre nga téere la mbootaay jigéen la yor fa fan si club mais mbootaay bàcc moo leen yilif moo tax mu indi leen te ñooñu ndeysaan ay doog soppey duudi kenn mbay bi mu ñëwee keroog ndesaan ma defe ne tuuti nañ mais gis nga bi ñu demee ba seen jàng ya ah illa tante fii ba fële kon ñooñ bu nekkee sa ginnaaw faaw ma sant ngërëm leen man daal nuyu naa ñëpp gërëm naa ñëpp waa koñ bi ñoom permesur ñoom boloo Pape Ndoye aseg naa aseg naa léegi am nañ kii bu bees non non kii non kii ay see bu bees aseg naa comme ça xam nga ay see mooy ñoom dañ daan footballaani mais comme que ñëw naa fi léegi am nañ star bu bees am kii bu bees ASC bu bees incha allah am jël bu bees ndam bu bees ci kaw rëg-rëg te li ma wax ni du deñ de